at yi wala weer yi ñu weesu jàpp nañ ne plus de mille détenus ñoo nekkoon ci kaso bi donc ñooñu ñu bëri jàpp ne xeex nañ am nañu mérite mais ñu gis ci biir investiture yi xam nga liste yi mënoo jël mille nit dëgg mille nit mm. mille personnes dugal leen ci pour ñu nekk député mais gis nañ bi ñu tànnee ba pare gisuñu benn contestation est-ce que yow sa côté jot nga foo xamante dégg nga ne waa ñu ngi kaas wala ñu ñu ngi def lu ni mel ci investiture bi. waaw dégg nañ fan yi paas peut-être loolu naa ko gën a gëstu mais maa ngi ko doon lire nii ci tii nii internet bi nii mais bon de manière officielle moom gisuma ko parce que bon format bi leen président Ousmane Sonko defal la hmm. te format boobu man jàpp naa nit après mënu ci kaas parce que par exemple ñu ni Pastef Pastef am na maggi Pastef am na Modap Modap mooy hmm. euh, mooy ñoom Imam Dramé et autres mooy doomu daara yi am na am na jeunesse patriotique bi hmm, JPS waaw ah, am na Moncap am na Moncap kuréel bu nekk par exemple man ñoo bokk kër waaye néeg bu nekk chef de chambre bi wala yéen ñi bokk néeg bi tànn leen ki ngeen wóolu pour mu ñëw hmm. représenter leen ci biir hmm. waxtaanu kër gi par exemple wala waxtaanu mbedd mi exemple bu am solo nga jël na donc xam nga loolu rek déjà hmm. loolu démocratie la bu naturel te nit mënu si contester dara parce que boo xoolee moo dab euh, Imam Dramé ak ki nga xamante ni moom moo ko jiite moom dani euh, dani moom euh, faluwul quoi maanaam bàyyi na leen ngeen ngeen dem par exemple njiit bi Euh, conseiller ci wetam. Hmm. ci affaire religieuse. donc hmm. ñoom ñu tànn ñeent ñeent te bu ñu tànnee dañu voté. xam nga loolu déjà démocratie benn groupe de personnes de de deux cent ou de trois cent personnes nga ne leen tànn leen ñeent si yéen ñoom ñu booloo def benn vote. foofu kan lañ fa tànn Cheikh Bara Imam Dramé ak. Euh, Cheikh Bara ak ñaari soxna lañ fa ànd. ah ok parce que Imam Dramé Imam Dramé bokk si. bokkul Cheikh Bara Ndiaye Cheikh la nit ñi jàppoon ni ci la bokk. Hmm. Cheikh Bara Ndiaye euh, bokkul ci. Modap bokkul si Modap moom dañu ko jël boole ko si mbir parce que ñu bëri ñu foogoon ci Modou la bokk hmm. bokkul si Modou en tout cas Modou liñ ci gën a Imam Dramé ci la bokk hmm. ak keneen ki tur bi moom mooy rëcc ak yeneen ñaari ñaari ñaari soxna donc boo demee hmm. yaay ji dëkk fii ci Parcelles moom bokk nañ ci suppléant yi donc mu mel ni pour man contexte boobu wala format bi président Ousmane Sonko jël pour man lu lu lu lu baax la parce que boo demee boo par exemple ay daafee nga dem c'est pas Tamba la dëkk ou pas. Mm-hmm. foofu ñu def ko ñu ko département ñu def ko tëdd liste département bu mu jiite. Mm-hmm. ngay dem Ismaïla Diallo euh, boo demee gin ngi neew moom ñu def ko tëdd tëdd tëdd liste ci département bu gin ngi neew donc ça veut dire que ni maanaam ku ci nekk rek pour man la nga yellool lañ la jox parce boo ñëwee ci Abass Fall Abass Fall ku ko xam-xam ni Ndakaaru am na lu mu fiy représenté nekkoon na fi euh, adjoint ci euh, Barthélemy Diaz nga coow lu si jublu woon après ñu ne affaire de parité yooyu ñu dem écarté ko ñu ne Macky Sall moo nekk si ginnaawam toog tey nga ñëwalaat député sortant la mais également nga nga ñëw ne ko ne ko boole naa ci liste yow ci la nga daal di koy jiital pour man lu lu baax la. pour yow loolu loolu lu baax la euh, donc da nga jàpp ne loolu moom mooy seen secret ba coow amul. ci seen coow du am en fait parce que koo ni tànnal mu tànnal boppam ñëw proposé la kooku bu ñëwaatee di coow yëpp. Hmm. Hmm. donc euh, mu nekk jàngat bu bu am solo mais dañuy woy ba léegi ci li nga xamante ne moom mooy élection législative yi ñu dëgmal bu fekkente ne jàpp nañ ne am na ñu mer peut-être wala am na lu wàññeeku ci électorat wu Pastef mën nañu gëm ne am ñu benn soutien soutien de taille Ousin moom mooy ki nga xam te moo fi nekkoon député di Mame Diarra Fam moom nag daal dinay woote ay ñooñam ak ñi ànd ak moom ngir rek ñu voteel parti bi di Pastef li nu mel nag euh, gannaaw rek mu ngi ko moom Mame Diarra Fam euh, ca ba muy nekk euh, fi nga xamante ne moom mooy Qatar daal di bind ab bataaxal bu yaa jàpp ne waxtaan nag ñenn ñu bokk ci PDS ak ñenn ñi nga xamante ne bokk nañ ci mouvement am ngir ñu tànn ban parti la ñu war a mën a dooleel ci élection législative yi ñu dëkkmal toll nañ nag ci ñamu waxtaanal fanweer ñetti secteurs yu nekkee ci PDS ak bureau bu section PDS ginnaaw raay nord Mame Diarra Fam nag daal jël position ci lettre ba mu génnee daal di koy duppee déclaration de Dubaï moom nag mu ngi invité membre yi nga xam te bokk nañ ci mouvement alternative euh, future di MAF ngir euh, ñi nekkee ci biir réew mi ak ca bitim réew ngir ñu voteel ci bésu élection ya parti bii di Pastef ndax kat jàpp na ne ci dynamique bi nga xamante ne ñoom